asalaamaaleykum waa référence actu di kontaan trop vraiment ci seet bi ngeen ma seet si suma kër vraiment di remercier sunu président ndax euh, vraiment bi Covid 19 bi amee ba léegi gis nañ ci jéego yi mu ci def waaw di gën a ñaax nit ñi ñu toog seen kër parce que jàngoro ji jàngoro ju doy waar la te nu nu gën a mënee delluwaat suñu boroom rek euh, dina doon lu gën a baax. parce que loo xam ne si ni tubaab bi ku ne xam na ni dara tewu ko ndax mu defar roppalaan muy daw ci jaww ji defar bato muy daw ci géej gi defar saxaar muy daw ci kii bi kon donc bu ñu demee ba feebar bi virus boo xam ne si ni vraiment buy di xeex koo xam ne si ni gisoo ko dafa doy waar bu ñu demee ba ñoom la gën a sonal ñun ñi nga xam ni Afrique la ñu nekk te vraiment nekk ñu néew doole war nañ cee gën a fagaru may ñaax nit ñi ñu gën cee fagaru aussi di gërëm président. waaw loolu nag dama ci euh, bala ma wax dara dama ciy gërëm euh, suma rak suma xarit di maam Ngor parce que gis nañu vraiment nekk na nit koo xam ne si nii mi ngi bay waaram parce que bu artistes yëpp doon def nii moom affaire yi euh, gën a dox. dama soo gisee ma gën a naw rappeurs yi nekk Sénégal parce que dañu booloo suudee mais ñun suñu problème mooy dañu suudeewul fi mu toll nii artiste bu la ci wax ni euh, tout va bien rek waxul dëgg artistes yi sonn nañu parce que ay njaboot lañu am doom am jabar war a fay war a mm, fayal suñu doom yi école ñi war a fay ndox wala fay courant ñu amul kër wala fay location donc boo toogee deux ou trois mois ba léegi nii tëggoo mais vraiment day metti waaw maam Ngor dama koy euh, dama koy encourager ndax moom yàgg na xeex waaw ndax ni muy xeexe fekkoonte ni ñaar ñett ñeent juróom ñu ñëpp ànd nañu booloo xeex li muy xeex kon lépp jóge na fi bon aussi di am loo xam dama koy méttitlu parce que ñun suñu ministre de la culture vraiment dafa mel ni bon moom culture taxu ko fee jóg bon président nag moom def na li mu man vraiment il a tout fait mu ngi def waaram mais je pense que man li ma koy jox beneen li ma koy xelal mooy ministre ministre de la culture boo koy defati wala mu di ko joxee na ko jox ku ko xam mais parce que ki nga xam ne si ni xamul min euh, ki ki nga xam ne si ni xamul musique je ne pense pas que ni vraiment mën na jiite musiciens yi. parce que Sodaaf euh, bon ki ko jiite mais ci milieu musique bi la yaroo ci la màggee Ngoné Ndour xam na musique xam na li artistes di daj bu baax a baax. donc je pense que nag il est temps que ñu jël ku ci nekk la nga xam la nga man ñu dénk la ko mais ministre boo xam ni peut-être je sais très bien que ni peut-être sax du déglu musique nga. waaw mais nag euh, rappeurs yi euh, bon ñu baal ma ci wax ji rappeurs yi dañ ëpp fula ba pare gën a booloo. xëy na peut-être côté intellectuel c'est euh, ñoom ñooñu ko ëpp donc moo tax ñoom lu ñu lu ñu lu ñu songu daan ko mais ñun su fekkente ni maam Ngor mooy wax fii am ñuy roccee ko ci suuf xam nga lu mu la ñu leen di corrompre mais affaire bi mënul lu dem parce que je pense que euh, sunu président bu génnee benn somme bi artistes yi lañ ci war a njëkk a sóoraale parce que gis nañ fi ba tàyyi artiste boo xam ni bu demee ba mag bu feebaree dañ koy ketal mais c'est pas normal loolu Afrique la loolu Afrique rek la am aux États-Unis vraiment artistes yi waxuma sax seeni i concert mais seen i droit d'auteur ñoo leen di dundal ba ki ba bon ñoo leen di dundal ba keroog ñuy sàngoo suuf xam nga yàlla na yéex mais ñun artiste bu ci dem ba dugg cinquante ans wala cinquante et quelque ans jeto mais boo feebaree dañ la yërëm et puis artistes yi sonn te bat na ci artistes yu tëdd yoo xam ni vraiment actuellement ñu ngi ñi ngi feebar seen i mbokk jaaxle amuñu lu ñu leen fajee solution ngeen bëgg def pour mën a jot ci ndàmpaay bi état joxe pour artistes yi man su euh, mooy li ma wax rek parce que àdduna loo ci gis rek booloo dafa am doole parce que booloo booloo mooy doole te buñ fekk boolewuñu nag li ñu bëgg def duñ ko def jamais waaw mais il ñu booloo mànkoo xam nga ku ci nekk ñeme parce que yàlla moom moom dëgg te yàlla dafa bëgg ki nga xam ne si ni da ñeme na dëgg mais su fekkente ni maam góor mooy wax wala man maay wax wala Pape Cheikh mooy wax wala keneen ñeneen ñi mm, amuñu ragal bon di gundaan daaj ci suuf mais affaire bi du sotti mais il est temps président xam ni artistes yi sonn nanu artistes si su fekkee mën na dimbali sodaaf ñu vraiment wut situation boo xam ne si ni vraiment dinañ ko jox artistes yëpp. parce que ñun wax dëgg yàlla ñun kaasaluñu suñu bopp parce que li ñuy am ci musique am nañ ko ba pare mais sunu maam ya bañ daan xeex indépendance ñoom taxuñu woon tey moo taxoon ok ñun it bu ñuy wax lii du par rapport ak sunu jeune euh, sunu doom yi war a ñëwaat duggaat ci musique bi quoi mais musique bi moom ni mu demee nii. vraiment ñu kenn kenn euh, kenn gisu sa bopp. gis boo toogee gis sa mbokk yi fa nekk actuellement di dund situation métti ci feebar bi ban ban analyse yow. waaw dana métti trop parce que ki nga xam da daan liggéey am mbooloo am ñoo xam dañ la yaakaar fii te mënatoo te vraiment mënatoo génn ñoom ñoom sax ñoo ñu euh, gën a métti lay parce que di dinañ am di euh, dinañ am huit heures ba six heures matin mais ñoom dañ leen a tëj. donc métti na trop métti na trop mais dama bëgg Sénégalais ak Afrique bi àdduna bi ñu xam ne mbir mi dafa doy war mbir mi dafa garaaw mbir mi du musiba sax mbir mi balaa la. waaw man loolu jaaxal na ma trop parce que sénégalais yi tamit dañoo dëgër bopp dañu dëgër bopp te aussi il faut ñoom am éducation parce que dañ dañ naan vraiment feebar bi boo demee ci marché yi day mel ni feebar amul ah, boo génnee ci mbedd mi dafa mel ni feebar amul te ñun liñ leen di wax seen bopp la parce que ku ci nekk kenn du dee di yóbbaale kenn mais soo gisee ñu kii soo gisee vraiment soo gisee vraiment euh, ñu sonn ci di wax c'est parce que c'est parce que dañu bëgg lu leen aar ma bëgg nag àdduna bi ñu tey africains yi Sénégal nañu tey bu baax jël feebar bi au sérieux parce que loo xam ni dafa jaaxal nasaraan bi ah <laughs> pense que ñun gis ak euh, waaw non comme ni ko docteur yi waxee rek parce que jaaraama parce que man su ma sañoon Macky euh, li may lancé appel mooy président yi bon je pense que feebar bi yal na fi jóge mais jàngale woon nit ñi ñu bari parce que li ñuy def nii dañ ko waroon a def avant waaw avant te buy weesoo nañu gën a jàppale docteur yi waaw nañu gën a jàppale docteur yi tabax fi ay hôpital ba pare gën a jàppale jeunes yi waaw su ko defee gën a jàppale jeunes yi ñu am liggéey parce que tamit vraiment maa ngi sant président xëy na peut-être li fi nekk lépp 1960 ba léegi ay rëq-rëq dafa amoon ci dëkk bi xëy na moom peut-être période bi muy jël nguur gi rëq-rëq yi dafa bari waaw mais euh, ñu ngi koy ñaanal et puis ma di ko encourager mais ma ni ko na bàyyi xel ci askan wi parce que les gens sont tellement fatigués soo coono bi ñu coono nag du moom. waaw sonn bi ñu sonn du moom xëy na peut-être amoon na njiitu réew yoo xam ne ñoo fi ñëw ñoo vraiment ñëw kii quoi mais ku ko gis moom ci diran bi mu ñëw vraiment mi ngi def mi ngi liggéey quoi mais na gën a gestu ginnaawam di waxtaan ak ay conseil di gën a jege askan wi parce que léeg tamit ña lay conseillé wala ñum parce que moom amul jot parce que ku ci nekk moom Sénégal gépp moom mënu ko diriger moo tax mu wut ay ministre mais li ma koy lancé mooy vraiment am na fi ay artistes yoo xam ne ay intellectuels la ñu xam artistes xam euh, maanaam vraiment ku àqu secteur bi maîtriser ko mais pourquoi pas jël un gars comme Baba Maal ko un gars comme Ismaïla Lo ah un ga comme euh, un tonton comme Père Ouzar ak ñeneen ak ñeneen ñëw jox leen ministre de la culture su boobaa ñun fa lañ koy gën a sentir mais doo jël koo xam ni si ne xamul musique euh, musique sax du ko déglu ah vraiment gis ko sax day jafe et puis ministre nga xam ni ministre de la culture ñun artistes yi ñun ñoo tax mu toog fii vraiment moom rôle am moo doon dem tàkkale président ni ko artiste sama artistes yi mais ministre boo xam ne si ni yoonam nekku ci vraiment dañ la dénk loo xam ne si ni maîtriser wu ko ah mais vaut mieux nag vraiment nga bàyyi ñi nga xam ne si ni eh, ça veut dire mën nañu doxal liggéey bi parce que ñun ministre de la culture vraiment doon na jekk trop ñu jox artistes yi pourquoi pas man pourquoi pas maam Góoru pourquoi pas keneen ak keneen ak ak yooyu quoi ci lañ ciy gën a gisee suñu bopp waa Sodaat nag bon ñoom macha allah ñu ngi leen di gërëm parce que ñoom ci ministre bi la ñu ak ay programme ñoom it ñoo bokk artiste je pense te ngóone mi ma xam dafa yaroo ci musique ci musique magam di musicien mu xam am na expérience bu baax a baax a baax a baax donc moom artiste du fa nekk di sonn may lancer appel nit ku baax day gore am na ci artistes yoo xam ne ñun fekkee dañu bëgg li ñuy xeex kii nañu booloo mais li gën graaw mooy di roccee dem ci suuf ñu lay neexal ak yooyu nit ku baax day diñ quoi waaw man daal loolu laa am ci li may lancé di ñaan nag Sénégal yal na fi yàlla def jàmm jàngoro ji ñuy xeex yàlla jële ko fi waaw yàlla musal ñu te aussi sénégalais yi ñu moytu di encourager sunu docteurs yi di encourager sunu sëriñ si te bu ma sañoon tamit mu mbaay ak ambiance bi tuuti période bi ñu xaw ko wàññi tuuti waaw daal di nag vraiment jéem a tuub suñu borom nu ñuy tuubee suñu borom mooy émission yi na ci ay vraiment tàggkatu yonent bi di ëpp waaw parce que léeg dëkk bu tilimee xëy na et puis xam naa bu ñu jógee ci lii nag àdduna bi dina neex macha allah parce que léeg-léeg balaa euh, balaa neex naxari te yàlla buy defar day mel ni ku yàq mais lii je pense que ku ci jàngul war ngaa kii te ñu bari góor góorgóorlu waaw ñu bàyyi po mu bari mi ah, jigéen ñi bàyyi taamu bi te sëy góor ñi yërëm jigéen ñi xam nga yàlla Macky vraiment yàlla may ko xéewal mu am ay entreprise yoo xam ne xale yi dañ ciy liggéey xam nga su ko defee Sénégal nekkaat beneen Sénégal vraiment loolu daal laay wax quoi maa ngi kontaan nag vraiment fekkee ndam fi wax loo xam ne dafa ëpp bon maa ngi jégalu. waaw mais loolu daal laa amoon ci lu muy wax wasalaam jërëjëf